lamb ji dama jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo ko yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg a gis prix dur prix dur. xeex lamb joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. boo ko nag ñu dugg biir koo rek maa la gën a xotteeku fuuf xotteeku yow man man may yàqu la waaw man damaa yàqu waaw maa la gën a xotteeku ku nekk ñu tàggoo yàqu di dee noonu lay defee tey bu defee noonu tey xam ne fa la def John Waar loolu xëy na dëgg la ci moom am de tey Modou xam ne fii la yaakaar ku ne yaay xool fu la yaakaar rek waaw Modou xam ne fii la ko yaakaar fii la koy defee daal di ñaan lépp loo xamante ne daal bëgg na yàlla na ko ci borom defal ndax xale la boo xam ne dafa am entraînement kërti kërti daanu ko am de expérience moo koy daan waaw expérience ak yar ak comportement moo koy daan mais tey ñëw kër kër ñëw lii def ni mënul daan Modou ndax xamante nañu bu baax a baax a baax xamante nañu bu baax a baax baax waaw. ndax ndax li ngeen li ngeen andi ak ak Balde andi ko ak Boy Niang tey jàpp ngeen ne loolu bu ngeen ko andilee Siteu dangeen ci am ndam. non bii moo gën a wóor sax bu Ama Balde bii moo gën a wóor boobu yëpp barki alxuraanu karim préparation bii moo ci gën a wóor. Ah. barke alxuraanu karim bu arbitre bi léegi waxee. teg ne bii moo gën a wóor. non dëgg la di ko. non foo foo teg ni bii. foo teg ni préparation bii moo gën a wóor foo ko teg. dama préparation bii moo gën a wóor. ndax am na ci hygiène de vie am na ci entraînement am na am na ci ouverture d'esprit am de te Modou maanaam calcul Modou ci làmb nit mënu koo calculer te nu ko neex lay ñëwee barke alxuraanu karim hmm. kooku demal ko wax barke moo gën a wóor barke alxuraanu karim. naa nga ne Siteu nga ne Modou kër kër kër daanu ko. yar moo koy daal teggin. mais Siteu su amee loolu yëpp nag am am yar am teggin nag. dëgg la non maanaam maanaam Modou koy joxe yar bi ak teggin bi Modou moo koy joxe. dëgg la ndax Modou boo ko jaayee tey yar ak teggin mën na la koo tey kii mais boo ko loo loo ko jaayee lu loo tey du ñu am ndax dañ naan sax boo koy gis nga mën nga di di pample ci laam gis bu yeewoo. Modou bu yeewoo ci laam barki alxuraanu karim yéen ñiy seetaan damay ragal mu boole leen ci barki alxuraanu kër dama ne Modou bu yeewoo ci lam yéen ñuy seetaan sax barki alxuraan bu ngeen moytu mu leen ci maanaam mun de mun leen maa kay maanaam nekk na ci lam maanaam dafa téye lamb te nu mu ko téye man te nu mu ko téye nit mënu ko koo dindi barki di la boo xam ne kenn jàngulu ko lam loolu doon ci moom barki alxuraanu kër lépp la moo di wax ci làmb doo koy def barki alxuraanu karim man dama koo xam noonu ma mbër yëpp tey laa la laa yem xool mais tey tey boo gisee Siteu tey mënuñu ko wax benn kaddu ndax dafa jël benn dafa jël benn kaddu bu rafet jox ko Modou Lo am de dépassé ko benn yoon tey loolu rafet la di mbër moo xamante ne tey Modou bu Siteu bu demee ba tool fii ci làmb tey ah war na gën a tey jox Modou Lo cër ndax moo tey da koo xool ko ni kan ngay bëri mën naa may xale sax mu tombé Siteu kon tey Siteu am na wan ne cër boo xamante ne jox na ko Modou Lo ñëpp gis nañ ko teewul signature dafa neex teewul combat bu neex xam nga loolu comportement la man loolu laa bëgg ci mbër am de tey di ñaan tey Parcelles Assainies 1 ba 26 ñëpp na ko borom defal ndam lu sedd guy loolu laa bu kenn ko wax sa làmmiñ Modou Lo yàlla koo bàyyi dugg ci lu leer nañ boo xoolee xam ne yaram dafa set amul benn caaxaan barke alxuraan koy mbër yu bëri tey boo xoolee am na nekk suñu mais moo dafa jaar ci siraatal mustaqiim waaw am yar ak teggin am di ko ñaan di ko xam ni combat bii barke 2024 bii Modou jar parewu ci pour joxe couronne bi parewul pour joxe couronne bi. dama ni 2024 bi Modou parewul pour joxe couronne bi man bu ma la xoolee su ma leen ko waxee di ngeen ñëwaat wàññi man lu ma wax ci làmb déggoo leen man du caaxaan may profité ci làmb. waaye Bati. waaw résistance bi Siteu andiloon Lac dëgg la waaw bu ko andilee Modou Lo du ko andil ay jafe-jafe. non résistance bi li Siteu de Guiers 2 tey de ah, résistance boobu tey du bokk ndax ñoom ñaar bokkuñu bëre Modou Lo tey xool ñu ko ñu mu bëree ñëpp ñoo ko sut ñu mu daan ñëpp ñoo ko xoola Modou Lo xoola Gris doo ah xoolal tey ay isaapuy ñooñu sutuñu Modou Lo samay classe lañu loolu njool taxuta daan Modou bu doon gàttaan ci box tey doo gis box bu box wóor bu njool ak bu gàtt ku gàtt bi dor ku njool ki mu fanaani ji marché gol tappe kon yooyu ñu wax amul njariñ am det nit da ngay entraînement wóolu sa bopp Modou mooy mbër moo xam ne boo xoolee dafa entraîné ba feere man mii nekk seen mag rek tega man maa bàyyul entraînement ne ci forme barke alxuraan asama ñoom li ma gis li nga yor tega man rek maa ne ci forme asama ñoom samay samay jarbaat ak samay rak yooyu waaw dëgg la man xam nga tey nit boo demee ba dénkaane nit boo demee ba dénkaane Sénégal mooy dénkaane gisaal xaalis dem jël ko man dama xas ba dénkaane ndax yàlla rek mooy buur yàlla rek mooy buur waaw di ñax sëriñ yi dégg naa nag sëriñ yi ne ci télé bi kër kër dama bëggaat ñu delluwaat seen xel ci yàlla waaw waaw dégg naa ñuy wax sot yo dañu delluwaat seen xel ci yàlla xam ne ndam sëriñ joxewu ko sëriñ tey sëriñ bu taxaw naan daw combat bi ñii wala na defal attention ci boppam boo ci gis bàyyi nga mbokk bu xone ca bàyyi nga mbokk boo xam mën nga koo xoolal mu yor mais yooyu yëpp ñu yor defuñu yàlla boo ci fëgg barke alxuraan ko 3 heures wala wal wala fa barke alxuraan danaan kon nañ defaat attention ñiy sot naan ay dañuy sot si Modou ñoom mënuñu sotal seen ndax booy sot am nga sa mbokk bu xone sotal sa mbokk ba mu am alal kon yooyu bu ñu nax nit ñi yàlla moo yor àddina lépp yàlla moo moo ko yor te Modou Lo dafa wax xiiru ci borom bi kon yàlla na ko yàlla defal ndam loo xamante ni ñëpp lañ koy taxaat ngeen seet si waat ma waxaat leen fii ndam li Modou Lo pareegul pour joxe couronne bi waaw Modou pareegul pour joxe couronne bi. Sa Touba gis nañ mu dem ba Dior waar lan la da ngeen di mu demee noonu. waaw tey Sa Touba tey tey tey lépp lu la Sa Touba tey xam nga nit mën nam bu ko bu ko ko xeebal waaw tey Sa lépp lu ma wax tey tey def na ko xam nga tey daf may leer waaw ndax xale boo xam dafa jub ci ba ndax ma bëgg Modou lépp ndamu parcelle bi ndam parcelle am na moo ko gënal kon lu Sa Touba tey ñun mënuñu ko dañuy nekk lu mu wax ànd ak moom rek ci dëgg gi waaw ni ko Sa Touba di ko remercier nit ku baax la daal bëgg na Modou teg na xam ne fu mu ko war a teg day loolu comportement la waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm ci doole Cheikhul Khadim ndax Sa Touba waaw waaw ñu gis Modou ba muy préparé combat bi. waaw commencement bi gis suñu jotee dara tey équipe day bëri mosuñu jotee dara nit ñi ñooy wax rek mosuñu jotee dara barki alxuraan retour Papis ak du retour Papis Modou loolu lépp loo xamante ni da koy def tey nit mënu ko koo tee bañ a def mbër mu am hygiène de vie la mbër mu am comportement la lu mu war def nit mënu ko koo tee a def Papis ñëw ak Papis ñàkk a toog nu muy def da koy war a def ndax yàlla noppi na ba pare waaw ñoom ñaar kenn mënu dugg seen diggante ndax mag ak rakk lañu yàlla na leen yàlla suude ba mel ni suudóor bu suude ci weñ mu jàpp bañ a deñ barke alxuraan këri bu baax la waaw liiru jaar xaritam la daa war a bëri waaw looy wax liiru jaar sa xarit la daa war a bëri enema waaw liiru jaar tey boo dee xoolee la maanaam mbër la tey waaw tey bu demee ba am benn combat dañ koy ñaan ñëpp di ko félicité di jàmbaar la waaw NMA sax tey boo dee xool man mii sax bëgg naa NMA. waaw dëgg la ma waaw dëgg dëgg dëgg non dëgg oui ma man mii sax waaw. doo ma déglu dëgg la dëgg la waaw. waaw dëgg la man mii sax bëgg naa it kon liir dama ko ci félicité am déet di ko may di ko ko ñaanal mu maytul di ko ñaanal mu maytul loxo waa ji ndax waa ji loxo yi comme laalo waaw man loolu rek laa koy ñaanal waaw di ko ñaanal loxo wa ndax waaw dama koy ñaanal mu maytu loxo waa ji ndax waa ji loxo yi comme laalo waaw loxo yi comme laalo man waa ji loxo rek moo ma jaaxal loxo yi gaanu comme pédalu vélo man loolu rek koy ñaanal man waa ji daal loxo yi comme laalo waaw bu ko maytoo daal yàlla mën na koo maye lu gën al alxuraanu karim combat MMA. waaw man combat MMA yëpp barke alxuraanu kërim tey ni ma mel tey buñ ma imposé koo xamante MMA tey mën na ndax MMA du question su mën nga sol sol sol bi dem am det mi tey mën naa bëri MMA lépp mën naa ko mais si cadre ñu xool loo xam tey ma man daal buñ ñëwee daal gën a waxtaan daal waaw MMA moom bëgg naa ko ndax dóorante daf may neex waaw mujjee daal yéen ñaar combat dëgg la man déggoo li ma la man bu tolloon ni man pot de lampe sax man bëgg naa ndax xale laa xam naa élément di mënu te mën naa bëri am naa doole gis naa waaw loolu moom amul benn problème daal loolu loolu bu ci loolu la desee tëdd leen nelaw non dëgg la loolu moom say boo ngeen bi ba pare naa barki alxuraanu karim waaw man sama catégorie képp ku ma toll catégorie cent dix kilos ba cent quinze kilos pare naa pour jëflante yoon non état bi xam nga tey boo dëkkee parcelle nekk ak Modou Lo entraînement ko koo ñàkk tey boo xoolee samay morom ay ay ñu fi nekkoon di bërindoo ay tafatin sama morom la am det ay la dëggee deux ñun ñëpp ay morom lañu barki alxuraan karim ñoom kenn ëpp ma ci de xanaa ñu naan ay doom man ku ci naanu doom ëppoo man du ma jël doom du ma jël protéine man ah, entraînement naturel laa yor barki alxuraan ko barki boo ma xoolee xam ne naturel laa yor. daa mel ni gars yi yëpp si laam dala xaw a metti moo nga defaat retour bi. waaw dëgg la xam ma ñëw si MMA bi ndax MMA dafa neex amul da ngay ñëw bëre jàpp sa ñaambur am de MMA daal dafa neex daal ñu ngi ci barki alxuraan karim MMA daal bu ko yàlla dimbale mën naa cee bëre MMA daal baax na daal yal ñëpp jàmm daal yal na yàlla defal ñëpp jàmm yal na yàlla defal lii dama jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti. mais ku bëgg a gis prix tour prix tour. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bugguma ñàkk. waxum laaj nag ñu dugg biir koo rek maa la gën a xottee fuuf xotteeku yow man man may yàqu laa la wax man damaa yàqu waaw maa la gën a xottee ñu tàngoo yàqu di dem